président li mu wax la jeunesse dugal na si aussi les étudiants gis nañ problème yi ngeen di dund fii ci Kaffrine gis nañ aussi ne université bi ñu wax merci waa Kaffrine Kaffrine sama dëkk Kaffrine sama dëkku maam Ndukumaan fi laa bokk ah maam mbégte ñëw fii tey ci Kaffrine pour waxtaan ak yéen waxtaan ak mbokku Sénégal ci fi nga xam ne fi la réew mi toll yéen ñëpp xam ngeen ni réew mi bëri na ay jafe-jafe réew mi am na ay naqar-naqar ñu bëgg nag incha allah bu ñu yàlla dimbalee ngeen jàppul ci bu ñu jëlee réew mi régler problème yooyu loolu mooy li nga xam ni mooy sunu ambition dañu bëgg rek réew mi baax dañu bëgg rek réew mi tegu ci yoon dañu bëgg rek andi waat dëgg dañu bëgg andi waat valeur dañu bëgg jàppale jigéen dañu bëgg bëgg jàppale xale yi dañu bëgg jàppale béykat yi réew mi kenn du defar bu fekkee ne yi jàppale wuñu bu fekkee amuñu ay politique ay politique agricole yoo xam ni dina amal béykat yi njariñ ku ñëw fii nag ci Ndoukoumane di nga wax waxu béykat yi di nga wax mbay mi ñun ñëpp xam nañ ni mbay mi ni mu meloon melatu ko mbay mi bëri na ay jafe-jafe sunu béykat yi ñoo gën a ñàkk ci réew mi te ñoom ñooy dundal waa réew mi ma jàpp ne loolu jaaduwul bëgg nañu bu ñu ñëwee ñu taxaw mbay mi yéen ñëpp dégg ngeen sama programme nit ak naataange li nga xam ne moom laa wax ci mbay mi parce que gëm naa ni sunu réew mbay mi moo koy soqali gëm naa ni sunu réew napp gi moo koy soqali gën naa ne Sénégal càmm gi moo koy soqali lépp loo xam ne sunu politique la bu ñu ñëwee ci réew mi ci ñetti yooyu en tout cas bëgg nañ ci insister bu baax a baax a baax baax damay wax ne baykat yi du yoon ñuy béy ñetti weer di liggéey ñetti weer di toog juróom-ñetti juróom-ñeenti weer du ñu def dara du ñu am dara mbay nag mbay nag mu ngi commencé ci maîtrise de loo ndox il faut ñu fexe ba ndox mi nit ñi mën ko am mën a bay mu mën a amal réew mi njariñ am nañ suuf am ay nit yu mëna bay béy ndox lan mo desati lu dul andi ay politique yu baax jàppale béykat yi à tout point de vue bu njëkk bi wax naa ko mooy sunu programme nit ak naataange ci mbay la bëgg a suqali sukkandiku pour suqali réew mi donc dégg ngeen ma ma théoriser les trois F pour ñu defaraat sunu mbay ñetti F yi il faut que ñu bàyyi ko xel bu njëkk bi mooy formation I'm solo nous yi jaadu ñu ci formation nous leen ci nous lo xam dañ koy soxla pour mëna ay nous yu yu moderne deuxième FB, foncier mbokk yi xam ngeen Sénégal problème foncier problème souf bari na réforme foncière bi nga ni lañu entamé kenn nous ko ñun bu au pouvoir

dinañ ko andi ci disposition yu am solo yóbbu ko foo xam ne dinañ ci dugal xaalis bu bari li may jël ci engagement mooy banque agricole boobu siège bi fii laa bëgg mu nekk ci Kaffrine jaadootul parce que Kafrine, ku ko wax wax le bassin arachidier jaadootul sunu banque yi yëpp ñu concentré ko à Dakar la banque agricole que nous mettrons en place le siège sera érisé ici, à Kafrine. Nous allons construire un bâtiment pour abriter la banque agricole ici à Kafrine. Il y a une succursale nekk à Dakar à ci parce que Kaffrine ku ko que nous ne dëkku donc Mokyi yi waa Kaffrine jàpp leen jàpp leen Nous ñun li de Je mooy taxawu dëkk parce que fi parce que mon Jadu, lenen li ku wax mbay di nga wax production ku wax mbay di nga wax unité de transformation mais ku wax mbay di nga wax industrie benen engagement bi may jël moy industrie bo xamné c'est la transformation des céréales fi ci Kaffrine lañ ko bëgg implanter inshallah fi ci lañ bëgg implanter la plus grande usine de transformation des céréales qui créer emploi jàpp jàppale xale yi jàppale jigéen ñi ñëpp mën a am ay activités yoo xam ne dinañ ci taxaw mbokk yi loolu mooy loo xam ne lu am solo la ci mbay mi ñu bëgg ci taxaw jàpp jàppale béykat yi ba bépp béykat boo xam ni da doon béy ñetti weer boo récolté béy dugub béy gerte nga jaay sa gerte am ci trois cent mille wala quatre cent mille bëgg naa bu ma ñëwee o pouvoir béykat bi di liggéey at mi yëpp parce que dina am ndox parce que dina am jumtukaay yi nga xam ne dige, lay liggéeyee moy mécanisation moy tracteur yi nga xam ne yi dañ ko soxla leen ay superficie yu am solo yo xam dinañ mëna bay béy ma bëgg xalé yi ci mbay mi la jeunesse retour à l'agriculture c'est fondamental et pour faire ça nous allons mécaniser et développer notre agriculture nous allons maîtriser l'eau lolu moy li nga xam ne lañu bëgg

ay jambour moom ko ay wa bitim rew moom ko bu ñu suñu coopérative yi buñu jappalé paysans yi mën nañ leen organiser ba nga xamné dinañ am seen ay ay grande surface luñu bay andi ko fofu jaayal ko seen bop mu amal leen jari donc mbokku kafrine mbay mi amna solo ma wax leen ni képp ku leen wax ni Sénégal te investirul ci mbay mi waxul lu am mbay mi kese moo mën a développer Sénégal may terminer di wax ni xam naa yeneen jafe-jafe yi fi nekk mooy mooy ñàkk accès aux services sociaux de base kafrine amul assainissement dëkk bu toll ni kafrine di capitale régionale war na am assainissement système d'assainissement bu mucc ayib loolu moo waral saa bu tawee kafrine am ay jafe-jafe jafe-jafe wu inondation man na dégg ngeen ma wax fële bi ma demee Parcelles

liggéey lijjanti naa ko ci ay yeneen réew yi réew yi réew fii ci biir Afrique donc su ma jógee xam naa fi ma koy jaar ba inondation incha allah dina wàññeeku bu baax fii ci biir Kaffrine loolu mooy mbokk yi li nga xam ni bëggoon naa ko wax sant leen gërëm leen ci tertu bi di leen wax ngeen taxaw ba le 24 incha allah heure bi dimanche heure bi dimanche heure bi dimanche heure bi dimanche heure bii dimanche ñu le président de la république du Sénégal c' est Aliou Mamadou Dia. ak di leen sant bu baax di leen